Ibrahima Sall maa ngi lay nuyu. maa Sall nga nekk njiitu ASRED di association pour le soutien et la réinsertion des détenus euh, tey jii li ñuy wax euh, bracelet électronique yàgg nañ ko dégg euh, effectif na fii ci Sénégal maanaam justice mën na ko daal di utiliser pour ñenn ci détenu yi yow ak kuréel gi nga jiite lan mooy sa jàngat bu njëkk ci mbir mi. waaw mbir mi moom xam nga depuis mille 2017 lañ ko commencé wax coow li bëri journalistes yi di laajte détenus yi di laajte kañ la bracelet yi kañ la bracelet yi def depuis deux mille 2017 yàlla suñu borom def na démb ki nga xam ne mooy garde des sceaux ministre de la justice Ismaïla Madior Fall ñëw na inauguré centre de surveillance bu ñu ne centre de surveillance mooy maanaam mooy maanaam bërëb bi nga xam ne garde pénitentiaire yi ñu formé ak yooyu dafa am ab juge am ab garde pénitentiaire am benn directeur comme directeur prison ñu ñu formé leen ci wàllu ordinateur wàllu xarala affaire yooyu yëpp ñoom ñoom ñooy base bi nga xam ne détenu bu ñu takkal appareil bi ñoom ñoo lay surveiller loolu lañ doon inauguré démb ministre bi wax ne li ñëw ci bracelet toll na si ñaar téeméeru bracelet disponible la nii mu nekkoon ndaje mag boo xam ne ay ministre de l'intérieur ñëwoon na ministre des forces armées ñëwoon na médiateur de la république ñëwoon na Abdou Mbow bu assemblée nationale ñëwoon na ay généraux ñëwoon nañ la presse waa ASRED waa administration pénitentiaire ñëpp fekke woon nañ ndaje bi mu nekk mbir boo xam ne ñun rafetlu nañu ko parce que li tax ñu rafet ko mooy maanaam daal ñun daal lépp loo xam ne jëm na daal ci détenu yi am affaire rek même bu fekkee moo mooy pexe bi nga xam ne comme ni ñu koy waxee moo fi sës yaa fi sës moo lay tax falu ñun daal en tout cas nangu nañ te rafetlu nañu ko. Euh, léegi Ibrahima Sall processus bi naka lay demee détenu bi nga xam ne euh, juge bi daf koy takkal bracelet <coughs> électronique euh, naka lay demee processus bi ñan ñoo ko war a takk ñan ñoo ko warul takk. xam nga xam nga visite conjugale yi ngay dégg ci kaso maanaam détenu yi war a sëy ak seen ak seen ak seen jabar. ndaysaan démb bi ñu annoncé bracelet électronique bi ay ay soxna yu jigéen yu dëkk si banlieue dañ ma woo ndax seen i ay juróom-ñaari at juróom ñu ne ndax ndax yàlla dinañu may suñuy jëkkër aafiya ndax ñu mën di seex suñu jëkkër ndax sonn nañ ñenn ñi ménopause nañ ñenn ñi mënatuñu am doom donc mu nekk xibaar boo xam ne en tout cas famille détenu yi nit ñi am nañ ci yaakaar bu rëy rëy ba ñeneen ñi yaakaar nañ sax dinañ jotaat seen alaaji ñeneen ñi yaakaar ne dinañ jotaat seen seen seen soxna. waaw <coughs> donc mbir bi. ni mu ni mu ni mu demee nii rek la compliqué wul. waaw mbir bi moom dafa am ñoo xam ne ñoom la ne ñii nii ñoom lañu mën a takkal bracelet bi ak ñii mënuñu si bokk. ñi nga xam ne mënuñu si bokk mooy dañ ne mooy ñi nga xam ne dañu luubal alalu réew mi maanaam ñi sàcc alalu réew mi googu laay wax sàcc yi nga xam ne ñooy sàcc alalu réew mi mënuñu si bokk. mënuñu si bokk. Hmm. waaw ak ak ak ñooñu dañuy fay caution caution dañuy. dañuy lañ sàcc dañ koy delloo waaw. Hmm. ak ñi nga xam ne ay délit douanier xaw ma nu ma koy waxee si wolof. waa ñooñu ñooñu it mënuñu si bokk ñooñu caution la ñuy caution la ñuy joxe bu loolu weesoo dañ ne képp koo xam ne yaa ngi nekk instruction maanaam juge bi dina déglu te pareegul wala ñu ñu placé la sous mandat de rek kenn atteegu la kenn defalagu la dara wala ñu tëj la ba condamnation bi définitive. Mm-hmm. ak keneen fàtte naa wax aussi troisième bi nga xam ne bokk si mooy koo xam ne appelant nga appel. appelant maanaam. mooy ñi nga xam ne dañuy def appel te seen appel xam nga loolu condamnation bi définitive wul. appel mooy ñu waaw des na daal waaw. mooy ñu àtte la ba pare bi ñu la àttee nga ne àtte bi ñu ma àtte nii bëgg ñu àtte xam nga kooku yoon xamagul fu muy féete wala ay takar balaa wala dina may liberté provisoire. Mm-hmm. pare yow yaa ne bi neexu la léegi loolu ñooñu ñoo mën a bokk ci ci ci ci biir lu weesu ñi ma wax nii ñeneen ñëpp mën nañ si bokk léegi nag loolu nag dafa am ñoo xam ne ñoom la yoon par ay loi ak ay règlement par président de la moom mooy défi moom mooy définir suñu politique pénale léegi nag pour code pénal ak code de procédure pénale dañ ko yóbbu assemblée nationale modifié ñu ne ñii ñoom ñoo am sañ-sañ joxe ndigal daal ne nañ takkal kii bracelet électronique ñu ne procureur de la république si la bokk ki ñuy wax juge de l' application des peines si la si la bokk ki ñuy wax juge d' si la bokk ki ñuy wax comité bi nga xam ne ñoom ñooy ñoom ñoo nekk milieu ouvert ñoom ñu ne ñoom si la ñu bokk ñoo ñoo habilité takkal nit bracelet ñu ne ci yan anam lañ la wax lay takkale dafay fekk nag dara nga nekk détenu boo xam ne wax sa dëgg yàlla jote wax kenn dara ci kaso bi ñu la yàmba jàppewu ñu la téléphone xuloo wax garde indi woo fitna ci kaso ñu xool ne yaa ngi tëdd sa kaso normal garde yi def seen rapport ne ah kii kat gis nañ ne njort nañ wala yooyu war nañ ko mën a may chance ñu ne léegi nañ ko may chance mais buñ la koy may dañ lay tegalaat ay charte dañ naan la ah yow kaso nga nekkoon tëjoon nañ la fukki at tëdd nga juróom-ñetti at ñaari at moo la dese waaye mbir ni mu demee nii rek la léegi takkal nañ la bracelet bi nag mais suñuy ñaari atu kaso baalu ñu la ko de dañ la ko dañ la ko takkal rek mais bàyyiwuñu la looloo tax ñuy wax surveillance maanaam foofu yow ni nga. Hmm. mais nekkatoo détenu bu ñu bu ñu génnee ngay dox di séer sa jabar di di dox say soxla ci dëkk bi yow façon détenu si responsabilité administration pénitentiaire nga nekk maanaam ñoom ñoo lay surveiller moo tax boo demee fa ñuy surveiller ay garde ñoom ñoo fa nekk foofu yoonu police new fa ak yoonu gendarmerie ñu ne la. Mhm. bracelet bi takkal nañ la ko mais dañ lay tere nga dem Thiès dama joxe misaal rek. ñu ne la parce dafa am koo fa joteloon koo fa xulool jàmm moo gën tout cas takkal nañ la ko mais daal bul génn Ndakaaru Ndakaaru nag fu la neex taxawaalul heure bu la neex tëddal mais daal bul dem Thiès léegi nit ki. bu sobee ci ay pexe boppam rek jéem a jéem a dem Thiès rek xam nga mooy maanaam charte yi ñu ko tegal jalgati na ko. jalgati na ko. xam nga ala kulli al foofu ay daan dafay tegu mais daan bi dafay dépendre ci foot xam nga booy xool ci matière pénale ki violé ki sàcc portable ki def lii ku si nekk am na nu ñu lay daane. léegi loolu benn la léegi nga dem ba si biir loolu doyu ko sax nga ne léegi man bracelet bi damay dem si tëgg mu tey mu yàqal ma ko wala ma yàq mémoire bi wala mu dikk ko jéem a yàq mu rëcc. léegi base de done bi ñu toog ay une semaine trois jours gisuñu appareil bi tàkk parce que dafa am logiciel day relier wu directement ak base de données bi foofu mouvement boo def dañ koy xam dafa am mémoire am batterie am chargeur da nga koy charger booy tëdd dafa am durée bu batterie bi di dund yooyu yëpp dañ la koy wax naan la yow amoo intérêt di dof doflu ba ba ba mu vide comme nga bàyyi sa portable ba mu vide saa boo ko waree charger charger la soo waree def defal léegi yow nga yemoo foofu nga tekki affaire bi ne da ngay ñu ne ah comme da nga rëcc dañ la baaloon ñaari at la dese woon ñaari at yooyu yokk nañ ci juróom benn weer hmm. muy ñaari at ak juróom benn weer c'est-à-dire saa boo rëccee si li nga waroon tëdd ci kaso yokkal nañ la si juróom benn weer waa juróom benn weer loolu mooy loolu mooy léegi nag bu dee nag da nga rëcc ba pare def yeneen jéye comme tey nga rëcc bi nga rëccee yemoo si rëcc bi mais ñu dégg na dem nga Tamba sàcc fa ay xar wala rey nga nit wala dem nga violé waat yooyu yeneen jéye la six mois yi da siy bokk mais bële dañ la siy attewaat hmm, hmm. te léegi waaw comme mhm. par exemple euh, Ibrahima Sall am ko mhm. ñëw ñu àtte ko justice ne kii dafa faat wala dafa violé ñu war ko mhm. tëj dix ans vingt ans par exemple kooku si si si dafay mën a euh, euh, bénéficier wu ci bracelet électronique wala foog mu am lu mu tëdd voilà comment ça passe xam nga grâce constitution yaakaar naa moo gën a féete kaw ay ay ay ay ay mbirum bracelet électronique. Hmm. bra constitution moom dara gënu ko féete kaw te yaakaar naa pouvoir bu président de la république am dara gënu ko féete kaw muy grâce laay wax. Hmm. grâce dañuy gracier ku rey nit dañuy gracier ku viol dañuy parce que grâce buy ñëw moom muy définir kan la ñuy bàyyi ak kan lañ dul bàyyi. Hmm. parce que yërmande dong la donc bracelet dafa mel ni rek liberté provisoire wala ñu wala ñu ñu ñu ñu ne dañuy wàññi kaso yi pour kaso yi féex rek. mais ñuy surveiller détenu yi si beneen anam ah ku mën a doonee. boo nga ñu lay doog a nii nii nii doogu la tëj si saa si au lieu nga tëdd tuuti génn mais si saa si ñu jox la ñu takkal la bracelet électronique nga delluwaat sa kër si ku rey nit am. par exemple foofu foofu laa lay dellool rek xam nga grâce ni ko yoon tëddee grâce fa laa lay joxe misaal. xam nga dañ ne la njiitu réew bi moom am na droit mu gracier ku ko neex waxtu bu mu ko neexee. Mhm. tey mën nga tey ji nga rey nit laa la wax. ñu tëj kaso tey lundi président yeewu gracier la mardi kenn mënu ci dara parce que yoon moo ko may sañ-sañ boobu noonu kon c'est-à-dire lo lo loi bi moom lii loi la code pénal la ak code de procédure pénale mu jaar assemblée nationale moom mu ñëw définir. ko anam yi ñuy bàyyee nit ki ne lii ak lii la ñuy bàyyee nit mu ne mais yii mënuma leen bàyyee léegi bépp juge bi. ak responsabilité administration pénale juge bi mooy xool xam nga àdduna rey nit taxul nga bon ñaata nit lañ tuumal si réew mi viol te defuñu si dërëm man gis naa fii tëggeej koo xam ne doomam bu jigéen moo ko géeñ viol sama dëkkandoo la militaire la woon doomam ba mu ko géeñee moom moo génne cinq cent mille fay ñu def test ADN bu test ADN amul woon kon ci kaso bi lay dee kon c'est-à-dire du dañ la giiñ rek yow lañ la giiñ yaa ko def yow maanaam kaso du dañ fa yóbbu nit ñi pour rey leen wala pour sànk leen wala pour ne wala pour ne nit ki daal dootul génn dañ la fa yóbbu pour wax la ne li nga def nii baaxul dañ koy tere ñu yar la teg la ci yoon delloo la société bu ñu demee nag bu téye la diir bu téye la diir xam nga administration pénitentiaire li ñu daan sàmmkatu mbott moo xam di siy soox. Hmm. xam nga ñoom ñi téye détenu yi di finaan ak ñoom di yeewoox ndoom di lekkandoo ak ñoom ñoom ñoo xam ñoom détenu boo leen laaj dinañ xam bankat dañuy dem ba xam seeni mbokk xam lépp ñoom commission bi ñoom dañuy waxtaan ci seen biir ñoom dinañ xam ne ah détenu bii de gis nañ ne buñ ko mayee liberté de wax sa dëgg yàlla dootul dellu seeti si kaso ndax comportement am baax na ci condition yi mu dëppoo ak lii yoon wax mais dañ lay bàyyi nga dem foofu amul rey nit amul def lii amul def la parce que soo gisee ma posé la question bi yaa ngi di gis criminalité bi ni mu yokkee faati ni mu bëree Sénégal ñu bëri sax wax ni tëj dix ans vingt ans saafaraatul faat yu bari mais plutôt sax peine de mort léegi nga faat ñu takkal la bracelet nga nekk di doxantu si dëkk bi nu la neexee est-ce que tamit loolu du gën a influencer defkatu ñaawtee fi euh, Ibrahima xam nga xam nga xam nga dëkk bi moom wax sa dëgg yàlla bu dee dëgg rek nga bëgg a dégg. Mhm. maanaam dëkk bi am na ñoo xam ne ñoo dàq def ñaawteef ñi nga xam ne ñoom la caabi féete ginnaaw mooy ñiy bël ak sàcc lu dëkk bi lekk askan bi ba deseetuñu dara réew mi boo xoolee ñëpp jeex takk jaaykatu fonde yi guddi duñu des dara jaaykatu caakiri yi guddi duñ dese dara man may ga bi ma dendeel nit ñi nit ñi dañuy buuxante ba des fois damay defe ne xeex fa am fekk lekk la ñuy xëccoo mm-hmm. alkaati yi nga xam ne ñooy jaamaarloo ak boy yi si tali bi léegi bu manifestation amee alkaati yi sa amatuñu doole ndax ndax sonn jeex tak dañu sonn jeex takk ndax ñi ngi si tali bi manifestation tey manifestation suba donc réew si boppam soxna si moom moom métti ñi ne kasu mënuñu jël mbir mi ne dañ leen koy giiñ parce que loolu la ñuy wax réinsertion sociale boo tëjee nit kaso yow yaa ko teg ay daan tëj ko daan yu metti fukki at ñaar fukki at du ay caaxaan boo ko tëjee kaso da ko war a jàngal métier àll bee ngi ni yaatu ba bëgg dee ngan di àll Sénégal ñaata hectares de terre la am deux cent cinquante mille hectares de xale yi ne ci kaso bi lekk naan tëdd nelaw entraîné bon dem nañ ko ba léegi bu ñuy libéré kaso sax diriange Ndakaaru yi day ñëw gaare seen oto di leen xaar foofu si bu parce que dañuy ñiy libéré kaso yàgg yooyu ñoom la jigéen ñi bëgg loolu gis nañ ko kaso Dakar ak ay kaso Ndar ak yeneen kaso donc kon mbon moom tant que état moom jëlul ay responsable si ñi caabi féete ginnaaw mbon gi dafay gën a bëri si réew man lii ba mu ci bindee téere wax ko 2015 tapel internet nga tapel internet. Mm-hmm. nga tapé 4 novembre 2015 sama émission ak Ndiaye Walfadjri. 2015 mm-hmm. fa laa njëkkee wax ma ne Sénégal fii ak juróomi at fukki at dina fi gis xeetu ñaawteef boo xam ne mësta am Sénégal. Mm-hmm. yegg nañ foofu gis nañ ko. dëgg la. on c'est-à-dire li ngay wax ñun suñu xam-xam suñu xel natt na ko ba gis ko mais responsabilité la boo xam ne tey Sénégal est-ce que am na maison d'accueil buy accueillir détenus yi jàppale leen. non réewu Sénégal boo libéré prison nan la la nit ñi di xoolee say mbokk say say mbokkaale yi njëkk a beddi société bi beddi la kenn du la faale léegi yow ñu nga téye kaso ñu tëdd fukki at fukki at ak juróom ay vingt ans nga xam ne gisuñu jigéen gisuñu dara entraîné amuñu benn xalaatu àdduna jàng luñ leen dara nekkul dañ tëdd kaso rek libéré mais bu ñu génnee xool étage yi màgg nit ñi lu lu lu leen dal seen àdduna rek ñu def ne nit ñee leen ko dañuy violent dañuy agressif. Mm-hmm. dañ leen di xeeb léegi ñoom dañ naan. man léegi man man comme dëkk bi ku amul xaalis kenn du la conseil mhm. waaw yàqu naa ba pare man sama yoon new say boobu am na ñoo xam ne signé ñëw nañ kasu fukki yoon mhm. ma gis yoo xam ne ñëw nañ kasu fukki yoon parce que société bi du leen accueillir accueillir bu rafet mais nguur gi tegul ay bokkaas yoo xam ne dañ naan boo génnee kaso kat boo ñëwee DER financé la DER ñii di politique da lay man de yóbbu naa ay détenu kenn financé leen. <laughs> kenn financé leen. Mhm. waaw samay jigéen ñi nekk si association bi yóbbu man structure yooyu dama xamul ban njëriñ la am si réew mi loolu moom mooy dëgg. Hmm. te président de la république man maa ngi bind ay rapport di ko yónnee si palais moom xam na nekk ci kaso yi par rapport yi ma koy bind. dafay tontu ne sa rapport liir naa ko xam nga kooku yow rapport yooyu complaisance hmm. wax li nekk ci kaso yi dëggantalaan wax ko situation réew mi mais tey réew mi li nga wax dëgg la dëgg la yàlla bëgg am na insécurité. Hmm. am na criminalité. am na viol sàcc gi léegi cere ji saf na laalu saful laalu ñu jël sa bakkan mais loolu ñun ñëpp ñoo ci war a dugal suñu loxo jàpp ci bu baax a baax ñu xool ñi nekk kaso nan lañ leen di dimbalee donte rey mënuñu ko dindi si àdduna sàcc kenn mënu ko fi dindi bari yàlla sax bëggul àdduna bi normal mais ñu def suñu kimtilaay ak suñu kàttan ba ñaawte fi wàññeeku fii nga xam ne moo di réew voilà Ibrahima Sall maa ngi lay jaajëfal jërëjëf maa ngi lay sant di la gërëm bu baax a baax a baax. voilà may fàttali ne yow yaay njiitu ASRED di association mm. pour le soutien et la réinsertion sociale des détenus maanaam kuréel gi nga xam ne mi ngi euh, kaas àq ak fu ñi nga xam ne caabi daf leen féete ginnaaw. jërëjëf maa ngi sant di la liggéey bi bu a